bismillahi rahmaani rahim salaamullahi amma bikum wa nuurullahi jalla bikum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan 2STV ñu ngi leen di defal direct li nga xam ne mooy ñu ngi ànd yéen ci li nga xam ne mooy mawlidu nabi fii ci masjidil jaami li mawlana cheikh al islam wa barakatil anam kon ñu bokk rek lu ànd ak cheikh Mamadou Lamine cheikh a Niass atalallahu baqaahu ألجم نصرا وأهله الغرم ورد نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تعترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى ألم ولا طبق حتى احتوى ويتك المهيمن من قند فعليا أتعتها النطق وأنت لما ولدت شرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق فنحن في ذاك الضياء وين النور وسبل رشاد نختلط اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم وكون وأخلاق خير مخلوق ثناءك بعدنا أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا

غلاما لحق او نكالا لملحد فغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله والعرش محمود وهذا محمد تغذي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبرد جلى ليلة الظلم وفي عطافيه أو أثناء مدته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف التاي مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة بالأرامل يرد به الله من أهل وهم إنهم في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحزن فيه غير منقسم أعمى دعاة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم تناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى لا تسترهم لم يمتحنا بما تعالى نقول به حسن علينا فلم نرتب ولم نيب حي الورى فهو معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منقرب كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلم وأملغ العلم فيه أنهم بشر وأنه خير خلق الله كلهم من الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط محمد الفادي الذي عليه جبريل أمر محمد بشر ذاك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر ذاك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتيته لبديع رجالي براعة الاستدلال ومن خاتميته براعة المقدم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل وجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيه وترضيك ترضيه ترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من الزين أقرام فوق الجبال إلى ما كن منهم قليل بحب عز وجاه فبجائهم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير ما يا مدى لنا رب سوى ثانية ربيعي بمرحة شفيعي من منطق البديع أغيب يا مليء

والشفيع بكل قلب مؤمن تهنئة ربيعي بمرحبي شفيعي شهر الفرح شهر ذهاب الترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل وشع بين شهور متوج مكلل لمحل فاتحين وخاتمين وآخر وأولين شار الناصري بالحق شار الآمري بالعرض شار الظاهري بكل وصف أكمل أنا أدعو ربي بمحبة قولي أنا لا من اشتداد الوجل أنا ضامي لمن حقي سفيرني المنطق لا بديعي أهوي بها أهل المشار الهادي لمنهجي رشادي وقائدي نحادي إلى الطريق الأمثل أهلي أدور من حاز سبق سودتي يوم اعتذار رسلي من التراب لمن حدي صفي عيني واشفع لدينا تقبل لمن حقي صفيعي كنت يا بديعي حبيبها هذا المشال المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك المرسلين خيره من انقضاء اجله لمن حتي صفيه ساقا ومن له الحسنى فقط عليه جبريل وبار بكل نور معتلي لمن حديث في Amen. فيه وحل الكسر لصنم المجدل لمن حديث صفيعي لمن بالقلال البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجله

شار الأجم جبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير المرسلين أكرم بيوم صار عشرنا وسنارا لمن حوى الفقارة ومختلف

المرسلين أبغي بها الجمع به يوما ونبي إلى قربه مفرح بربي وهو رضاه أملي دعني أدعو ربي أعين إن قلبي شفيعي لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع رفيقي

واسمع للقارئ وللذي حضر أمهم خفي تكرم نائب دارما أفاتي الكدرة بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عم بكم ونور الله جل بكم mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan 2STV yi gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi nuyu suñu xalifa xalifatu saahibul fayda mawlaana cheikh al islam alhaaj ahmad tijaani waaye di nuyu suñu imam cheikh alhaaj ahmad tijaani ibnu mawlaana seyda ali Cissé di am mbégte ak kontaante fii ci masjidil jaamia ngir rek waxtaan ak yéen ci gàmm waaye ànd ak mawlaana cheikh al islam ànd ak koo xam ne présenté ko doy na rek nga ne sëtu Mawlana Cheikh al la waaye bi ma anal kelima lépp lu ñuy nekkee rek sëtu Mawlana Cheikh al Islam jox na ko ko kon Seydi Ali ñu ngi nuyu di la ziara waaye di la laaj rek eh, Mawlana Cheikh al Islam ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ci doon ñëwal ana lan nga ñuy tontu. bismillahi rahmaani rahim wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sayidi walidi aadamin wala faxr wa ala alihi wa asxaabihi wa bi ixsaan ila mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan julli googu tasaaroo ci njabootam ak saxaabam yi ak ñu ko topp ak ñu ko topp ba keroog yàlla di walee bufte bi di ñaan ngërëm ak yàlla nekk ci suñu sëriñ Maulana Cheikh Tijani nekk ci seen xalifa ñoom ñaar ñëpp Maulana Cheikh l'Islam Haji Ibrahim radiallahu taala anhu mi nga xam ne weer wi da koo jàpp ne moom weeram la nga xam ne du ma ne sax bu weer bu teruwaan waaye da daan fuglu weer bi fu mun di nekk ci addina ba nga xam ne bu dukkiwaan ba weer bi di jege si yaa ngi koy dégg muy wax ne qalbi dawaaman bi madina arqubu chahr alhabibi id arahu yaqrubu sama xol man maulana cheikh ibrahima radiallahu anhu fu ma mun di nekk bu weeri gàmmu di jege si dafay sax fa kawlax sax fa madina ndax lu tax weeru soppe bi bu jege see rek man moom rek lay fuglu di nuyu mboolem jullit yi ñuy seetaan di jiital ci nuyoo boobu Maulana Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mi nga xam ne mooy xalifa Maulana Cheikh l'Islam Haaj Ibrahim di nuyu imaamul masjid al jaamia nga xam ne buñ ko nuyoo nuyu nañ mbooleem jabootu Seyd Aliou Cissé mbooleem xulafaawu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu di nuyu al mutahaddis bismil xalifa Maulaya Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Seyd Aliou Cissé Oustaz Aboubacar laaj nga laaj woo xam ne tontu ci danay jafe. waaye itam tontu ci dana yomb lu tax tontu ci dana jafe ndax baay ci boppam moo wax ne xaalam moom Cheikh Ibrahima ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xel munu fa yegg wax ma di ko daj wala mu koy waxtaanee Mawlana ma Ibrahima radiyallahu anhu boo ne digganteem ak yonent bi ak mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baay ba muy départ la wax ne xaali ma al la laa aqla yudrikuhu sama xaal man Cheikh Ibrahima man sama xaal ak yonent bi ni ma mel ak moom xel munu fa yegg waaye Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mbëggeelam gu tar googu nga xam ne jëkk njëkk na am ak addina bi nga xam ne bàyyi moo ko waxal boppam inna ni qabla al baraya xubbuhu shughla al jinaani njëkk yàlla di amal mindeef yi njëkk muy amal addina man ci laa bëgg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci beneen xasidaam ngi wax ne ci ajibtu li sabbin muqramil qalbi mulain ca biir mi ngi ne wa dalika ibrahimu yahwa muhammadan wa amru wujudil kawni gayru muwaqay ibrahima boo ko bëggee xam kañ la bëgg yonent bi nee na ba mu koy bëgg décret bi yàlla war a bindal amal ko si ñeneen dana amal addina boobu décret boobu amagut kon bë bëggeel googu ñëkk na am ak addina bi kon pour waxtaanee ko dana jafe Baay wax na ne ahbabtuhu hatta araani yakuntuhu wa rabbiya lam yaxluq makaanan wala waqta bëgg naa yonent bi di ko bëgg di ko bëgg di ko niru nirulu ba mujj nekk di moom te loolu ba muy am boobu yàlla bindagut temps bindagut espace moo tax ma ne la booy waxtaan ci Cheikh Ibrahim di waxtaan ci mbëggeelam ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi waxtaan ci sujet bu complexe waaye yaa ngi waxtaan ci sujet bu yomb lu tax sujet bi di yomb mooy dundam xam-xamam culture am lépp da koo jël addiyaaleel ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon duñ jéem a xalaat pour wax ci bàyyi ak yonent bi waaye dañuy déglu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci dawaawiinam yi mu waxtaanal ñu ci mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu ba muy addiyaal doomam taawam Cheikh Alhaji Abdallah yi dawaawin bi def ko bindal ne ko maa ngi lay addi yàlla yow sama resu xol yow sama doom ju baax ji nga xam ne waxtu bu nekk xibaar bu may bégloo nga may indil sama samra tawqaati xayaati sama meññuti waxtu dund laa lay jox kon dund mi yëpp da ko def ci tagg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee Paris di faju ñuy opéré bëtam bi nga xam ne boobu mi ngi toog di ko métitlu di wax ne ñëpp a ngi toog di dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba des Ibrahima miy toog te dara gàllankooroo ko lu may feebar ci biir xasida boobu da ngay dégg Cheikh Ibrahima Radi wax ne alayhi salaatullahi zumma salaamuhu audu ila shughli wa shughli ya shughluhu maa ngi ñaan maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu may ma wér ba ma dellu ci sama liggéey te sama liggéey du dara lu may tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faneen mu wax ne alayka salaatullahi zumma salaamuhu falam aku am madhi nabiyi atawaqafu doomu musa fekk mukk ci tagg yonent bi ma ciy taxaw waxtu bu nekk lahu kulla waqtin min qaridi qasidatun waxtu bu nekk rek yonent bi sallallahu alayhi am na ci samay tagg xasida boo xam ne rek maa ngi ko koy yónnee dama ne dundam waxtam lépp da def ci tagg yoon ci yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax na thaqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madixu limam alhachimi wa fadluhu ñi ngi euh, dagg waxtaan bi fii comme mbiru télé la wax nañ la juróom-ñaari minute la fukki minit di jéggalu mbokk yi ñu doon teewlu xam naa ne fi waxtaan bi di daggee nii neexu leen waaye ko xamee noonu rek ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci guddi yu tedd yi nga xam ne mooy guddi yu gën ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wax na ne nañ dagg waxtaan wi foofu rek bañ amaan beneen occasion incha allah waaye wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi ñu la ndokkeelee ci kontaan ci waxtaan bi nga xam ne def nga ko ñu ngi ñaanalaat moolaay al xalifa moolaay cheikh al imam naka noonu mboolem ximaadul xadara lii mooy Medina bàyyi ngi doon ak yonent bi te foo ko natt rek romb na ko kon alhamdulilah dañ leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu